kon dee mi nga noonu kenn mënut koo daw te léeg-léeg nga bëgg dund fekk dee gën ci yow ndax nit bu waree dem safara gàtt fan a gën ci moom gudd fan ndax nu mu fi gën a yàggee rek bàkkaaram gën a bëri te nu bàkkaaram gën a bëri mbugalam gën a tar nit ku war a dem aljana ñaareel tamit la yonent bi wax àdduna day mujj nekk kaso bu ko teree dugg aljana te fekk deewul du mun a dugg aljana moo waral Suleymaan mos nañ koo indi benn kaasu njar mu bàyyee ñu xamal ko ne ko boo naanee lii doo dee mu diisu mbooloo xam ma ndax moom yàlla tàggataloon na ko jinne yeeg malaaka yeeg yenti yenti suuf yeeg njanaaw yi mu xoolu leen ñoom ñëpp ñëw ba mooy signeel ba ñëpp ñëwee mu ne leen dañ ma andil naan ak aljana su ma ko naanee du ma dee ndax mën naa naan wala du naan ñenn ngi ne ko mën ngaa naan mbooloo ma yépp boo ko naan da nga fi yàgg tey sa yàgg fi suñu njariñ la léegi ba mu des si ñeen ba nga mu yónni fas ak lu ñuy tuddee xoob ne leen dem ngeen woowal ma si ñoom ñaar woo ko mu bañ a mu door a yónnee xaj ne ko demal nga wol ma signeel signeel ñëw Suleymaan ne lu tax ba ma njëkkee yónni sama ñaari ndaw yi ci ñaw ñëwuloo benn ndaw bi ma woo ko nga door a ñëw mu ne ko ñaar ñi ma woo ñëpp ay warkat lañ fas warkat la man nga koo yafal ba mu suur nga war ko mu maam ak yow gaañ man kuy war du ma wuyu ji ab woote yónni ci moom du ma wuyu mu ne ko xoob warkat la danay topp ku dul boromam boromam danay sonn ci moom lu mu am jox ko jàmbur romb ko rek mu bàyyi boromam topp topp topp maanaam keneen ku dul boromam mu ne ko xaj nag turwee ñaaw waaye ku am kóllëre boromam rek lay lay lay topp te loo dóor dóor loo dàq-dàq boo wanee gannaaw rek mu toppaat moo waral nag bi ma xaj wooyee rek ma ñëw mu ne ko man de dañ maa andil am naan boo xam ne su ma ko naanee dinaa gudd fan du gaaw a dee ndax mën naa ko na mu ne ko naanal waaye maa ngi lay xamal ne gudd fan bu la yóbbu ci kaso góorul génnati dee ci teraanga moo ko gën kon léegi-léegi nit bëgg a dund lool waaye dina tollu étape boo xam ne dee rek mooy gën ci moom daana wax ne nit bañ na ñaar doomu aadama bañ na ñàkk wërsëg néew alal bañ na gàtt fan mu ne ñaar ñëpp nag moo gën ci ñu ne ko lu tax mu ne boo néewee wërsëg bu yowmal xiyaamee da ngay neexal rek le ku la gën a bari alal kooku mooy gën a bari problème àllaaxira dërëm bu ne foo ko jëlee foo ko dugal laaj yëpp ci àdduna laaj yëpp ci àllaaxira benn laaj la ba mooy alal alal moom dañ la laaj foo jëlee dërëm bi ak foo ko dugal fu baax dugal fu bon ñu mbugal la boo jëlee fu bon dugal fu baax tamit ñu mbugal la li lay mën a musal mooy jëlee fu baax dugal fu waaye tiriyaa alalu jaamur itam tabax jàkk tiriyaa alalu jaamur yi tabax daal tiriyaa alalu jaamur yi dem aji ci màkk seex na tijaan yi mu ne mi ngi mel ni nga jël yére fóotee ko sobe lu tax mu set dafa yokk tilim léegi nag su bu sa alal tuutee day neex a réglé ay million ak ay ñi réglé ko mu set dara newu ci yombut moo tax boo ko bëggee dégg seetlu ko tey ñiy wàccee conteneur duggee ko Dubaay war a wàcce seeni conteneur ñi yore yeneen i alal ni ñoom ba ñu ñëw di wàcc ci avion bi benn bagage accompagné rek lañ yor du ñu am problème day wàcce rek jël taxi ñibbi waaye kee dana fa nekk di yéeg duwaa ñàkk jóge ko wàcc sama conteneur bi nii di réglé bu àllaaxira noonu lay mel moo tax yonent bi ne bu yowmal qiyaamee yonent yëpp Suleymaan moo ci mu ngi duggal aljana nit ñi dañ duggal aljana mu toog diirab juróomi dugg fekk lépp ñu ngi réglé xalalam ci nu mu ko amee ak fu mu mu ne tamit nit ki day bañ gàtt fan gàtt fan a gën ci moom ndax buy ku baax buy deere dem aljana buy ku bon moom mu fi gën a yàggee bàkkaaram gën a bëri su ko defee nu mu fi gën a yàggee bàkkaaram gën a bëri bu dee tamit bàkkaaram gën a tar moo tax nag yàlla indi aaya ji di xemem loo saaba yonantu bi xare wan leen ne xare ji taxut a dee ñàkk xare ji terewut a dee daw dee taxut a mucc ci dee moo tax mu ne ko alam tara xanaa yëggul sax xam ila lazina jëm ci mbooloo ma nga xam ne xarajoo génnoon nañ min diyaarihim bàyyi ko seen kër yi waxum fekk ñoom uloofun ay junne lañ lu taxoon ñuy génn xasaral mawti ngir mooy tuddiku dee fa qaala wax na lahum ñaan leen allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ba ñu rek diirab juróom-ñetti fan mooy ba ñuy daw peste ba dugg ci seen xur woowa su ma ax yaaw topp mu dundal leen gannaaw juróom-ñetti fan ci ñaan seen ak yonantu bu ñu tuddee xisqiil inna laaha naka yàlla la zu fadlin borom ngëneel la ala naas ki nit ñi walaakin na li fi nekk ak kasara naas li gën a bëri ci nit ñi laa yashkuroon duñ sant xéewal ak yàlla de lu leen yàlla dafa taggi sant ko léegi nag xamee ngeen ci ne dee kenn mënu koo daw kon nag na ngeen xam ne anna laaha naka yàlla dégg la wax yi alimun aji xam la tamit pas-pas yi man sa lati anakan kaaka yuqridu mooy lebal laaha yàlla xardan lebal xasanan koo xam ne bu rafet la fa yu daayi foofu ko defee yàlla fulal ko lawoo ñeel ko addawaafan ak ful kasiran koo xam ne bu bëri la kasiratin ku bëri la wallaahu yàlla yaxbidu mooy xatal wërsëg wa yabsutu mooy tàllal wërsëg ki ko wa neex wa turjaxoon def na delloo leen yéen ñëpp illahi leen ci yàlla de kon gis nga ko mbir mango li des ci yéen rek mooy kam mooy mën a jug ngir labal yàlla lebal bu sell di ko labal bakkanam bu ëllëgee yàlla tertoo ko bakkan bu dul deexati dugg jana kan mooy lebal yàlla ci alalam su ëllëgee yàlla jox ko alal ju dul jeexati ci xéewal ci fayee ko ko teraanga kan mooy lebal yàlla ci xam-xamam kan mooy lebal yàlla ci jotam di ko jullit te du ko yokk dara su ko defee kon lebal yàlla liñ ko mën a lebal lu bëri la te liñ ko lebal lépp ci ñun lay dellu moo xam da nga ko lebal sa alal wala nga lebal ko ci sa wér-gu-yaram wala nga lebal ko ci sa kàttan wala nga lebal ko ci sa xel wala ci sa xelaat wala ci sa xam-xam wala ci sa ndomba tànk wala ci sa daraja ci wàccee ko ci si kanam nit ñi loolu lépp delloo ko ci say jaa sa moromi jaam yi bu ëllëgee yàlla fay kon yàlla nañu ko mën lebalee mais nag ñëpp mënuñoo lebal yàlla benn waaye dafa tuub bees dégg ñu ne ku joxe benn yàlla fay la fukk mu xëy rek amul dara benn téeméer bu mu waroon a joxe dépense mu joxe ko ne maa ngi xaar yàlla fay ma junni toog ba midi bëgg a jot soxna si ne ko man sa laa jëm de mu ne ko damaa leble woon xaaral ba ba li ma lebloon bor bi ñëw muy toog di xaar di xaar presque ba une heure passée dara ñëwut mu dem ci sëriñ ba ne ko ah yéen yéen a wax ne ku lebal yàlla benn mu fay la fukk man maa ngi lebal yàlla depuis suba teel ba une heure a sama kër dara tàkkagut bu fayagul ma dara mu ne ko leble woo ko ngir yàlla rafetut da leble ngir bëgg a santaas yàlla ak bëgg jooni jooni léegi mu ne ko léegi man daal li ma ko lebloon bu ma ko manta sax fay ca la ma ko joxoon la ma ko maanaam li xaar ci moom mu jox ma la ma ko joxoon sëriñ bi ne ko loo joxoon yàlla mu ne ko téeméer mu ne ko téeméer a waaja daal ba muy jox waaja téeméer ba muy génn nag rek am ko ñëw nu ci sëriñ bi nuyuwaale ko kayitu bi mu ne ko waaw ah yéen yéen a mën a leble man mënumaa ko waaw niñ ko niñ ko jàppee woon ak ni mu kon man a yoqulu laa qadar xasanan fa yudaa'ifu adaafan kasiiratan ci pas-pas lay nekk kon gis nga xisaab xisqi la ngoog pour mën na koo détaayal nag xisa bi ci sarxa bi waxoon naa la Isqiil mooy troisième xalifa ci banu Israil Moussa fi newoon génn àdduna ba muy dem mu samp Yuusuf ibnu Nuun kooka taxawee xilaafa gi génn àdduna léegi nag gannaaw si gi ku ñu tuddee Kaalib wuutu ko génn àdduna Isqiil door a ñëw gannaaw Isqiil ci la Ilias ñëw gannaaw Ilias ci la Yasaw ñëw ñoom ñi ñëw Alxuraan dund na leen mooy zul kifli ñu taxawee xilaafa ga ba mu rafet comme na ko ñu leen njëkk ñu taxawee woon gannaaw si gi nag ñoo ñëpp dee nañ kenn neetu fa ay amaalekat di ay kàccoor yu am doole dëkk ci dëkk boo xam ne dafa jege lool baytul muqaddas ca Palestine ca wetu Gaza ñëw dal ci seen kaw doomi am liiq lañ Ibnu Aamd ñëw not banu Israayil ji jàpp seen doom ya ay jaam li ko defee nag ñoom ay ponkal lañu woon seen buur ya rek matoon nañ ñeenti téeméeri buur ay kilifa lañ sàdd ci ñoom ay galak ñuy fay impôt booba nag amatul benn yonantu bu fa ne ci banu Israël amatul ab sot yonantu bu fa ne lu dul benn jigéen koo xam ne dafa ëmb bokk ci sati laawi yi xam nga te laawi bokkoon na ca doom yi Yàqooba ya doon fukk ak ñaar léegi nag ndaw sa bi mu ëmbee ci la ñu ko nag denc di ko defi teraanga ba yàlla dogal mu am doom doom bi nga tuddee Samuel Samuel di ab yonantu mu ñu gaaw rek rawale ko ci baytul muqaddas mu yaroo fa màgg fa léegi nag mu toog si yàgg rek ba mu nekkee xale rek mag màggagul lool la am lu ko woo ne ko dellul ci sa nit ña sa nit ñaa sànku da nga fekk ko yaroon ko fonk bi mu ñëwee ne ko man dama nelaw am ku ma woo mu demal nga tëddaat mu tëddaat tuuti amaat ku ko woo waaye moom ñu ngi koy dégg waaye ki ko yar dégg ne ko demal nga tëdd ba mu ko woowaatee ba ne ko nag dellul ci sa nit ña sa nit ñaa ñu ngi leen di nott di leen def ay jaam talaw ca ca yow mii lañ sonn ci yow bëgg nga yaakaar nga xekk li leen ba mu ñëwee nag nitam ñi ñu bon nañ lañ banu Israël ñu yàlla bind ñoo ci gën a bon mooy siif yi ñu ne ko yow de da ngaa teel teel ngaa wax ne yàlla mayoon nit yi yow teel ngaa bëgg a jël kaala di teel ngaa takk kaala te demagul ci sa ndigg li di mu ne leen ak ah yàllaa ma yebal ci yéen situation bi métti bi ngeen nekk ma war leen ci digg te booba sonn nañ ci lañ ko def ne léegi dañoo bëgg nga sampal ñu kenn ci ñun mu war a nekk buur bu ñu war a ànd pour war a dem xeex bi leen gàtt yàlla digal na ma leen benn buur bu ñu tuddee taaluuta ñoom tamit dañuy yéemu ne ko année yekkoon la woon kii mu mën a nekkee buur ci ñun mi ngi nii amul dara amoo dara yàgg na fi maanaam nit ñi pour ñu jiital ko amul dara lu jafe-jafe la amoo dara lu fi yàgg la bu ñu ko mi ngi nii amul alal bokkut fu baax ndax booba ñaara fi ne ñaari sëti yàquba yi ñaari ñaari doomi yàquba yi seen sët ya ñoo daan doonante ñi ñoo doon nguur gi ñi ñoo doon wàllu nu bóotu gi ak risaala gi Bunyamin mi bokk ak yonentu yàlla yuusufa benn nday ak benn baay néeg booba ci la nu bóotu mosee xew ci ku mos sa nekk nu bootu rek ci foofu nga daan génnee ci sëti ci doomi yàquba yi ci sët yi ba ca banu israil yi jeex waaye ku mos a nekk buur ci banu israil ba ci si fii tey nekk fii tey ilif Angleterre dem ba ilif Amérique ilif tey adduna bi ay sëti yahuda lañ mooy taawu yonentu yàlla yàquba léegi nag ki leen euh, Samuel proposé pour mu war a nekk buur ba kooka nekkul ci ñaari doom yi nekkul ci ñaari sët yi kenn du sëtu Bunyamin nekkul sëtu maanaam yëngu sax moo tax ñu ne ko an na yekkoon lawul mulk alay na an na yekkoon lawul mulk alay na moom lay wax si nii nag. léegi nag Samuel bi nga xamee ne ñëw na la ca xew lay alquran di wax si ni ne alam tara xanaa yëgul sa xam yow yonantu bi ilal ma lay jëm ci mbooloo. min bani israil ñu bokk ci banu israil min baax di Moussa gannaaw génn àdduna ak Moussa ak ñi mën ca yuusox ak kaalib ak isqiil ak ilyaas ak yasaxu id qaalu ba ñu waxee i nabiin ñeel ab yonantu lawu boobu ñeexal na leen muy samwiil ne ko ibaas na nga samp lanaa ñeexal ñu malikan buur nu xaatil boo xam ne danañu xeex ak moom fii ngir yëkkati diine yàlla ji xaala wax na moom yonantu ba di Samuel ne alxasiitum amaan na yéen de in kutiba ndeem dogaleef na aleykum ci yéen alxitaalu xeex damay ragal alaa nu xaatiloo ngeen ñàkk xeex yi xaaloo ñu ne ko wamaa la naa an lan moo ñu ñeexal alaa nu xaatila ba duñu xeex ak fii sabilillah ngir yëkkati diine yàlla ji wa qad uxrij naa te mbir moomu génneef nañu min diyaari naa naa yi ñëpp jàpp nañ leen ay jaam falamaa kutiba ba nga xam falamaa kutiba ba nga xamee dogal leef na naa leen ci ñoom alxitaalu xeex tawallaw ñoom ñëpp ñu dëddu ngir tàppet illaa xalilan lu dul ñu néew minhum ca ñoom de ñoo ca desoon wallaahu yàlla alimun aji xam la bi xaalimiina ci tooñkat ya de léegi nag ba yàlla farataale ci ñoom xeex ñu néew di 313 ñoo mujj dem xeex yi ndax ñoo ji dex gam leen tere woon na bu ci kenn naan léegi nag ba ñu xamee ne caaxaan fàcc na yonent bi wax na leen lu leer xeex man ta ñàkk te moo taxaw seen kaw ku leen sampal léegi nag ñu ne ko kon ñuy léegi nag sampal ñu ku war a ànd pour war a dem xeex bi wa qaala wax na lawum ñaale nabiyum seen yonent ba ne na laa naka yàlla xat baxasa samp na lakum ñaal leen taaluuta mbër mu ñu tuddee taaluuta malikan muy buur xaaloo ñoom ñëpp ñu ne a anee yekkoon naka lay nekkee la woon ñeel ko almulku nguur gi alay naa ci suñ kaw te wa nax nu ñun axaqu ñoo gën a xeyoo bil mulki ci nguur nu ci moom ndax ñun ñooy sët sëtu bunyamin ñi ñooy sëtu yahuza te moom mi ngi nii du ci ñaari ñi kenn moom nekkoon na koo xam ne da daan dëbb daaxe ñi ne am sàmm la woon te ñaareel bi wala mu ñu te joxee ko saxatal ak yaatu minal maali ci alam mi ngi nii amul dara dara amul ko ku amul dara naka lay mën a ci kanam xaala yonantu ba ne leen inna laa naka yàlla istafaaw tànn na ko maanaam wa aleykum ci yéen wasaadahu tëbb na ko bastatan ci yaatu fil mi ci xam-xam wal gis mi ak jëmu ju rafet de jëmu ji mate na ko xam-xamam matee na ko kon amoo am terewut a nekk buur ndax bis bu nekkee buur am waaye buur ji ñaar lay tegu mooy na jëmm ji matee ñaareel bi na ko xam-xam bi matee am na ñoo xam ne boo leen jàkk rek xam na jëmmi buur mi ngi ci ñoom waaye tamit am na ñoo xam ne xam-xam ba leen yàlla dénk ku ko gis xam ne xam-xam bi man nañ cee yore nguur waaye léegi na nga gis koo xam ne xam-xam ba dana ko matee waaye way ga ak fulla du ko matee léegi-léeg xam-xam ba mate ko way ga ak fulla ga matee ko mais jëmm ji du ko matee moom na mën leen ki ma leen indil xam-xama matee na ko jëmm ja mat na ku gis jëmm ja xemeem ko te maanaam bu waxee mu nekk solution boo xam ne ñëpp mën nañ caa jaar ba kenn ñëpp mën a ci te loolu la defee nit wasaadaw bastan fil ilmi wal jismi génn góor góor yàlla daana wax ne daawud a jawara moom de wasaadaw bastan fil ilmi wal jismi yàlla defal na ko maanaam jëmm ji daal mat na ku ne ko jàkk da nga xam ne daal jëmm ji mat na ko ku mel ni président ab ab ab abdu ab kii tabaarakala Abdou Diouf moom tamit de wasaadahu bastan fil ilmi wal jismi jëmm ji tamit matee na ko da ña ca des nag yàlla xam moo tax mu ne wallaahu yàlla yuuti dana joxe mulkuhu nguuram ga man yasaa ku ko soob de wallaahu yàlla waasi'un aji yaatu la ngëneel aliimun tamit ku xam la de léegi nag ñu xam ne nag léegi caaxaan fàcc ne tasoon na ñu ne ko nag léegi wax ñu màndarga muy tekki ne mën naa nekk suñu buur naka la mën a nekkee buur léegi ko wax nañ ba mu lee mën ta ñàkk léegi nag ñu ne ko man màndargaay tax ñu xam ne kii buur bañ waxee loolu rek waqaala wax na lahum ñeele nabiyum seen yontu bañ sàkkoo mandarga ci am nguuram ne inna ayata mulki naka mandarga am nguuram nga an yaatiyahum mooy mu dikkal leen ba dikkal leen taabootu ak gaal taabootu waxande fii ci goo xame nekk na ci sakinatun dal ak seen xel ak seen xol yi bi rabbikum bàyyi ko seen borom wa baqiyatun ak ngesit mi ma taraka ci loo xam ne bàyyi na ko alu Musa ñuñ Musa ña wa ala Harun ak ñuñ Haruna taxmiloo dana xenu ko almalaykatu malaaka yi ina fi daalika naka nekk na ci loolu la ayatan kaawteef buy tegtale ne kii mooy nekk seen ak buur lakum ñeex leen in kuntum dem nekk ngeen moom ngeen di ñu ne ko wan ñu te ñoom fekk ñoom amoon nañ benn taabut bu yàgg taabut bi wax nañ ne yonantu yàlla aadamaa ko wàccaale woon aljaana ñu desee ci yonantu yépp ay bagaasam nekk ci muy wàcc ba ci yonantu yàlla Muusa Muusa euh, fi la bàyyi woon dàllam togetu togetu aliwaay tawreet ya ca la nekkoon kaalaak yonentu yàlla Haaruna ka ca la nekkoon bagage yu bëree bëri ca la nekkoon bu ñu daan xeexi nag dañ daan jël euh, gaal googa lonk ko ñaari fas ñu jiitu xare bi bu ñu demee rek gañe mosuñoo xare kenn jël taabut ba jiital ko lu bëgg a def ba ba ba am nañu victoire léegi nag ba leen ñii ma limoon sànq noté muy amaale xëy dañoo nangu taabut bi ñoom tamit dem gas ko ci seen place bu sango sang fu ñuy fu ñuy tuur ndox suul ko fa def ko sobe di ca saw yàlla mu ñu di leen sant feebaru baasu seen kanam yooyu niwi ñuy dee dee bu ñaaw mu gi nag lañ xam ne lii lii leen ko waral yàlla nag yëkkati taabul ba ci ñoom gisatuñ ko léegi nag mu nekk lu leen réer kenn gisatut ko ba ba lii xewee nag yàlla jël ab Samuel yónni ko ci ñoom muy seen tu mu sampaleen taaluta muy seen ak buur la leen ne bu ngeen demee këram da ngeen fekk taabul booba nga xam ne na daan may victoire ci fekk yàlla xebal na ay malaaka añ wàccee ko ca kër ga ñëwal fekk fa taabul ba fekk fa togetu aliwaay tawreet ba fekk fa kaalak yonentu yàlla Haaruna ga daal li Muusaa yaag yeneen ak yeneen ak yeneen ñi xam ne nag léegi nag caaxaan fàcc li ci des nag mooy takkaayu rek war a dem léegi nag ñi war a jóg ngir xeex yi ñi dal ci seen kaw léegi nag départ nañ samp nañ léegi ki nga xam ne mooy Euh, buur ba di taaluta tànn ci ñoom tabaarakalaaw seen waxambaane ya ñoo xam ne nag soxlaay àdduna gaaru leen waxoon na am ku war a fay bor parce que fay bor farata la soo waroon ne tamit ku am seet bu bees bu sa nameel jeexagut ci moom may naa la ngànt mën ngaa topp mën ngaa topp képp koo xam ne tamit dangaa war a toppatoo say ñaari waajur ngir dañoo feebar wala ñu nekk ñu néew doole may naa la ngànt bul ma topp yëkkati daal ñu bëree bëree bëree bëree bëri jox leen ngànt ne man ngeen a topp léegi nag gaa yu bari topp waaye ñu bëri tamit départ nañ war a jug ànd ak moom léegi nag ñi war a départ pour war a xeexi nag mu war leen mu war leen a wax nag la mu war a wax falamaa fasal yàlla ne fala maa fasala ba nga xamee ne génn na taalutu taalut bil judoo di ànd ak soldaar ya bàyyi ko baytil muqaddas muy guddi bëccëg koo xam ne bu tàngal xaala leneen wax bañ génnee ne inna laa naka yàlla mu butalikum aji nattu leen aji exeme leen bi nëxrin ci dex dex gi mi ngi ci diggante Ordon ak Palestine fa man shariba képp ku naan minu ca ndoxu dex ga fa laysa min nii bokku ci ñama a topp wa man lam yatamu képp koo xam ne mosut ko fa innahu naka moom min nii bokk na ci ñi ma war topp de ah illa man iqtarafa lu dul koo xam ne dafa tànk xarfatan ab tànkin di yadihi ca loxoom fa sari boobu ba ko defee maanaam mu guux loolu doyloo ko da tànkin waa am nañu ne lim ci namm lu dul koo xam ne da ngaa benn baat wala nga dugal benn pot te loolu lañ ci mën a naan nandal ci sa fas ñeen na ngeen tànqit ma mooy sa loxo rek lay doon waaye yàlla dana mën a fekk lu tuuti mu bëril ko comme na nga ko defalee ca ñam ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa booba tamit ku ca ku tànk la mu ci naan sa fas naan ci nga doy loo waaye nit ña fuqali nañ fa shariboo naan nañ minu ca ndox ma illa lu ñu néew minu ca ñoom de ñëpp naan ca ba mooy ñetti téeméeri nit ak maanaam fukki nit ak ñett muy 313 moo waral li ma 313 yàgg naa gañe ndax moo tax ba limam 313 tamit moo topp taaluuta pour mu war a dem xeex léegi nag bañ ñëwee ba ca def ga rek ñépp naan ku naan rek sa tuñ yi soppeeku dootoo mën a demati ak tàppet ak tayal dugg la nga ne man dootuma xeexati toog foofa léegi nag tabaarakallaahu fekk matoon nañ téeméeri junne nit comme kon soldaar yi bëri nañ téeméeri junne soldaar matoon nañ ko yore seen ñekk ay ngànn borom yi ngànnaay nekkoon ñoo xam ne tamit tabaarakallaahu seen bëri waay ka kenn mënu la ko nekkoon nañuy xeex ak ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy xeex di ñu ci jaalu taya seen limba dégg nga ñoom parce que nag téeméeri nit am na ñu ne gënoon nañoo bëri loola jaaluta boppam rek gudd la woon am na ñu ne mbaxanaama rek mbaxanaam ma rek matoon na ñetti téeméer yi ñetti téeméeri yi lii baax kon mbaxana ma kon kooka bopp ba ko yenu konkal la ngir rëyaay gi ñetti téeméeri lii war na boo ko doon calculé xamante dana la jox dana la jox dana la jox tabaarakallaahu daanaka téeméeri kilo ak ak ak ak nangam kon mooma woppam ba kenn xamutoon ni mu léegi nag ñe ñee naan nañ ba des ñetti téeméer ak fukk ak muy 313 ñi war a jug nag jaamaarloo mbooloo mu bëri nii ñu téeméeri junne te seen ponkal mañ war a xeexal nekk ku ñu tuddee tabaarakallaahu jaaluta jaaluta moo jiite armée bi rek fii taaluta jiite ko léegi nag ci biir arme ba xale ba ci gën a ndaw ñu ko tuddee daawuda ibnu aysha bokkoon te biir soldaar yi jullit ña di taaluta moom nag baayam amoon na fukki doom ak ñett waaye moo ci gënoon a nekk tuuti daan sàmm gàtt ya léegi nag bañ waree dem ngir ngir xeex ca la yonantu ba xoote wala tala taaluta xoote ne jox nañ ma ab diw ku ma ko diwal bu bopp bu diw ga roogaatul wàcc rek rek kooku mooy rey maanaam jaaluuta la mu ko doon diwee nag di leen diw di seet ci béjjën la ko defoon def ca diw kum ñëw dana roogaat wàcc ba megsee ci ci ci la door a yem daawuda départ na romb aw doj mu ne ko jël ma maay doju yonentu yàlla Muusaa wa beneen doj ne ko maa doon doju yonentu yàlla Haaruna wa beneen doj bi wi nga war a reyee Jaaluuta mu boole ñetti doj ya muy benn doj ñoom nag dañoo fooroon ci mbëq loolu léegi mooy laspeer départ nañ nag ña ngay war a dem ca xeex ba taaluuta nag tamit teg na prime teg prime lu fi yàgg la la ne képp ku rey jaaluuta danaa la may sama doom jigéen séddoog yow sama genn wàllu nguur gi si ñël la ma xilif genn wàll gi ma xilif genn wàll gi nit nag yàgg naa bëgg prime départ nañ nag moom lay alxuraan di wax si war a jéggi dex ga ak 313 ya parce que ñeneen ñoom ñëpp kenn ñëwatut moo tax mu ne falammaa jaawazahu ba nga xamee ne jéggi na dex ga ba mu ko jéggee moom taaluuta huwa moom dafa cee bëgg a ataf de maanaam ismu saahir moo tax mu ne wala si nag nga xam ne amonoo gëm nañ maa ànd ak moom xaaloo ñoom ñu ne ko laa taaqata déet kartan danaa di ñu ñaal al yawma bi jaaluuta ci mën a jaamaarloog jaaluuta wa ak seen gànnaay yu ñaw yi xaala wax moom moom maanaam taaluka xaala wax na ko la si na ña nga xam ne yaxul noonu dañ nañu wóolu te mooy ñi nga xam ne jéggi woon nañ jax ga ne annahum naka ñoom mu laa koo laa yi way daje nañoo yàlla ci dekki lañ wax ne kamin fi atin bëri na kuréel xallatan bu néew xalabat boobu not na fi atan këréel kuréel kasiratan bu bëri de bi itin laa ci dëggalal yàlla wallaahu yàlla maa saabirina an naa way de bu leen découragé nañ dem kuréel naa gañe kuréel bu suñu amee pas-pas te yàlla tax ñëw leen ñu dem gisoo yonantu bi kuréelam ba 313 la woon not junney nit kon kuréel bu ndaw yàgg naa gañe kuréel bu mag su fekkee am nañu pas-pas ndax ñetti téeméer fukk ñett ñu ànd pas-pas boo ko koo gëm yàlla mu dëggu ci ñoom lu ñu sémbu mën nañ koo daan lu leen sémbu mën nañ koo daan léegi nag départ nañ dara desut ña ngi ca géew ba war a léewoo rek dugg ca xeex baa ci moo tax alquran ne wala maa barasoo ba nga xamee ne léewoon nañ li jaaluuta ak jaaluuta wa junoodihi ak soldaaram ya pour war a xeex ñi sàppe ñoom ñëpp xaaloo la mbooloom jullit ma di 313 wax ne rabbanaa yow suñu borom afrique yàlla nga tuur alay naa ki ñun sabran ak muñ wa sabit yàlla nga dëgëral ak daamanaa suñ ndëggu yi mu ànd ak suñ ci jihaat ba buñ daw wansur naa yàlla nga ñu dimbale xalal xaw mi julit ña moytu nañ xéeféer ya bii si laa ci digalal yàlla wa qatala rey na daawudu daawuda mi nga xam ne tabaarakallaahu moo jiite woon armée taaluta ba moo rey jaaluta jaaluta ma jiite woon armée bi xéeféer ya wa ataawu jox na ko allaahu yàlla almulka nguur ci banu nguur ga ci banu israil wal xikmata a xam-xamu njariñ muy nubuwatu ga gannaaw samwil te lii mësta daje ci kenn ku dul maanaam daawuda moom kenn rek moo ci de nu buwatu tabaarakallaahu ak nguur wa allamahu xamal na ko mi maa yasaaw la ko soob moom yàlla ci ngëneelam de léegi nag jox na ko nguur ga tabaarakallaahu mu mu takk na jenn doomam ju jigéen ca ba tey taalu te séet doom naa moom genn wàllu nguur ga mu xilif ko waaye buur naka jekk day fiir ñemewuñ ku leen ku leen opposé bañ demee rek coow la ñëpp yëkkati ko daawuda daawuda lañ ko lañ ko séddal ñëpp ànd ak moom la mu séddoo woon moom kenn di taaluta tamit ga ca ëpp taw ànd ak daawuda loola nag métti ko fiir ko mu ne day rey daawuda nit ña wax ku ñëw di ko laaye biir moom taaluta mu ne mu far rey la ba mu rey ci ay boromi xam-xam ay téeméeri téeméeri boromi xam-xam rey la la ñoo xam dañ ko doon laaye biir ndax buur ñaareel day rëy du ko wax dëgg soo ko waxee dëgg gis boppam mu jigi nag yàlla kum namm ci yow ak defar mu toog jooy xalaat lu bon lim def dem ci armeel di jooy man torox naa fu ma jëm bu ma dee dem safar nangam ak nangam mu jigi nag ci lañ ko xamal ne ko li lay mën a sowe daal demal ca sam wi ma seen ak yonantu mi la dimbalee woon ba samp la nga nekkoon buur nga dem ci armeelam ba mu dem ci armeelam ba di jooy di toroxlu di toroxlu di toroxlu mu won ko nekk ne ko am lu ko feeñ ci jëmm wax ak moom ne ko lii ya tax yàlla nangu sa tuub nga takkaayuwaat ànd ak sa doom yi ngeen dem di xare ba ñoom ñépp dee yow nga door a mujj ca xare ba mujj nag dem takkaayu di xare di xare nekk ca nekk ca ba doomam yëpp dee moom moo mu door a dee moo waral bi mu tëjjalee nguur gi gannaaw kii falu na ñeent fukki at la door a falu door a dee mu mel ni mu jëm mujj na baax léegi nag daawuda nag boole ñaari buur yëpp nekk di buur bu boole yëpp nekk tamit boole nu bóota boo risaal ga moom gannaaw taaluuta du na juróom-ñaar fukki at kon moo ci gën a yàgg door a moom tamit génn àdduna keroog nag ba nga xamee ne taaluuta tabaarakallaahu dee na naafiq yi dañoo bëri bëgg ñu tooyal seen ab ceeb ak ñuy nëxal ñuy nëxal géej gi mën a dund ñëw ci daawuda ne ko maa ngi sa noon bi la bëggoon a rey dee na mu ne ko yow ku bon nga danaa la xamal ne yow mi ma koy ñettali du du la jiitu àtte na nañ ko rey ndax yow mën ngaa tas am pénc ndax nit ñi dañoo bëri te ñooñu di dox ci kaw sëriñ yi di jaxase dugg ci diggante mbokk yi di yàq ba tey kër yi tas yëpp gannaaw yàlla lu mel nii moo ko tas moo tax daawul ne kii ku ñu ko fi bàyyee mu yàq pénc bi kon ñun la defee rek jëlee ko fa léegi nag yàlla tofal ci aaya ji nga xam ne alquran dafa nekk ci dayob toftale ne walaw laa dafullaahi naasa am ñu jàng walaw laa difaaulaahi naasa muy masdar mu daa faayil jéggi na sab mafaul walaw laa dafullaahi bu toppatoon na jañal yàlla anaasa nit ña baaduhum lenn ki ñoom baadin ci lenn li la noonu la fasadati yàqu al ardu suuf walakin laa li fi nekk yàlla suuf fa leen borom ngëneel la alal aalamiina ci mbindeef yi xam nga su fekkoon ne yàlla jañeewutoon xéeféer yeeg seen bon ngeeg ñu mooy yàlla yi ci jullit ñi kon nit ñu ëppee ak niñ amee ngànnaay dañuy faagaagal wax nañ ni àdduna bi yëpp juróom-ñaari milliards ñoo ci dund ñoo ci nekk ci ay nit waaye ñi fi jullit ñëpp ñëpp ñëpp ñaari milliards lañ kon juróomi milliards yëpp gëmuñ yàlla maanaam amul du nekkuñ ci diine lislaam ñii ay yahud lañ ñii ay nasaraan lañ ñii ay protestant lañ ñii ñeneen lañ ñoom ñëpp tamit ñoo bokk genn làng rek ndax genn rek benn diine la yàlla rek ma muy diine lislaam waaw ñoo nga tey ni te boo seetee moyen yi ëpp jullit ñi yaafus nañ parce que yàlla dëxaloon nañu ñoo waroon nekk ca kanam waaye bu la yàlla dëxalee li lay tax a nekk ca kanam nga nekk fii tëgg ak fecc ak di tàggante nangu woon liggéey boo nekkee ca gannaaw yaa ko teg sa bopp mais du yàlla léegi nag ñu nekk ci yooye di caaxaan ay li ñu waroon a ba ñu ne fa ca gannaaw kon tey ñoo yore koom bi ñoo yore ngànnaay yi ñoo yore fit bi ñooñu bu ñu yàlla jëngitoon seen kaw bu yàlla protégé wutoon ñoom ci ñoom ci ñun ñu daal suñu kaw ñu dee mais yàlla nag moo leen na saxal ba duñ mën loola. ñenn ngeen déedéet wala wala difaawullaahi naa sax contraire bala li fi nekk ni mu bonee man la juróom-ñaari milliards ñaari milliards gëm ci ñaari milliards yooya ñooy sababu yërmandeeg yàlla ba tukkalut àdduna alal nit waaye bu yàlla yërëmee toon noonu ñaari milliards juróomi milliards rek kon ñëpp am waaye gis nga ko tamit gën naa jegewaat yàlla mu ngi rusee àdduna bi di ci taw di ci xéewale di ci jàmmal ci wëliyu yàlla yi bu taxutoon a yàlla yi yàlla rusee li ko ñu ñëpp am ndax ñu manqué rek a fi ne lu mat newut fi waaye ñi yàlla matlee ko néew la ñu rusalee ñu manqué ñi moo tax Omar ibnul wax na ne yonentu wax na ci xaddis ne inna laa la yadfa'u bil muslimi saalih an mi'atin min ahli baytin min jiiraanihi albala mu ne bi maanaam benn jullit bu baax yàlla dana ca dëgg téeméeri nit ñu xam ne dañoo bon yàlla waroon a wàccee ci ñoom mbas war a wàccee ci ñoom peste war a wàccee ci ñoom toskare yàlla rusaleen kenn nit ku baax kon kenn nit ku baax kuy xeewee ndakaaru yàlla mën na cee dëgg sooy waa ndakaaru yépp ndax Dakar li ñu fi def ci ak mbon li ñu fi def ci ak caay-caay ak suñu Sénégal gi li fi nekk ci ay caay-caay bàyyee ko ca kaw ba ci ñu gën a suufe bu ñu yàlla rusee wutoon nit ñu baax ñi li ko doon alak nañu bu yàgg tax benn sëtu Seydou Nourou Tall mos na génn àdduna ñu suul ko fii ba mu tëddee mu ne daal Dakar dafa bëgg dafa bëri bur wi dafa feeñu benn nitu yàlla boobu maam ab doo ngi dund ne ko Dakar dafa bëri bur wi waxoon naa bu leen ma fi denc samay nelaw yi sama tëdd yi dara baaxut ci lañ ko suul sulli fekk dara yàqu toon ñu yóbbu ko Louga kon nag néew nitu yàlla am kas bu demee ba gis loola tabaarakallaahu Dakar moom tabaarakallaa yeneen la la waaja waxoon Dakar réewam bàkkaar la réewam maanaam dëkk bari ci lool góor jigéen ñi ne fi posement ñàpp yi kenn xamul nuñ tox ak yeneen yu bon yi nga xam ne kenn mënu koo nett yàlla ne tilka aaya yooyu ma nettali aayaatulaay mooy aaya yàlla yi natluhaa danañu jàngatal ko alay ci yow yonantu bi bil xàq ci dëgg wa innaka naka yow la minal mursaliina yaa nga bokk ci ñun yónni ña de day delloo gi ne ko lasta mursalaam doo ko ñu yónni yàlla déer wa innaka la minal mursaliina beneen tilka gi muy tilka ñooñu ma tudd ci ay yonantu ca Muusaa maanaam Yuusu ak Kaalib ak arusulu ñooy yonantu yàlla ya ak ñu mel ni ñoom faddal naa gënal nañ baaduhum lenn ki ñoom ala baadin ci kaw lenn minhum am na ki ñoom man koo xam ne kan la ma waxee na ko laahu yàlla ku mel ni Muusa wa rafaa yëkkati na baaduhum lenn ki ñoom darajaatin ay daraja yoo xam ne moo ko jagoo lu mel ni mottali ak yonantu gënal xeetam yi ci mbooleem xeet yi tabaarakallaahu jox ko ay mu'jiza yoo xam ne xaalida lay doon lu mel ni alquran loolu mu yonent bi moo ko jagoo wa aatay naa jox nañ Isa Isa na Maryama Isa mi doon Maryama albayinat lay layu leer nañ ya maanaam mën a dekkil ku dee mën a yëkkati yam daan def ak yooya waaye naaw dëgëree nañ ko bi ruuxul qudusi ci roxo bu sell ga muy Jibril walaw saa bu sooboon laahu yàlla mu gindi nit ñëpp li konte bu ñëpp gindeeku woon maxtat la du xeer li si nañu nga xam ne min baax di nekk nañ ca gannaaw yonentu ci ay xeer min baax di maa jaatum gannaaw boo xam ne dikkal na leen ay baynaat la yu leer nañ ya ñii xeex ngir ak wuutee walaakin li fi nekk ixtalafu wuute nañ ci coobarek yàlla fa minhum am na ki ñoom man koo xam ne amana gëm na sax ca wa minhum am na ki ñoom man ñoo xam ne kafara dañoo weddi comme nasaraan ya weddi nañ ak yahuud ya walaw saabu sooboon laahu yàlla maxtataloon li kon duñ xeex de walakin laa li fi nekk yàlla yafalu mooy def maa yuridu lépp loo xam ne namu na ko yaa ay wàlla fi neen yi xam ne amonoo gëm ngeen an fi xoon na dundal mi maar saqnaakum ci leen xam ne wërsëgal nañ leen ko ngeen joxe ko ci asaka ak saxas coobare min xam li an yaatiya njëkk bay dikk yow mun bis boo xam ne laa bayaxun déet njotu fii di nekk ca bis ba wala xolotum jàkkeen xaritoo di fa di fa a xéeféer ya um ñoom xaalimuuna ñooy nekk tooñkat ya de moo gën a dal xel wa xaalimuuna hum kaafiruuna bu ne woon wa xaalimuuna hum kaafiruuna kon ñëpp torox fekkoon ne kuy tooñ rek xéeféer nga li ko torox waaye nag xéeféer ya ñooy tooñkat ya moo gën a dal xel tooñkat yaay xéeféer ya kon gis na ko yàllaa ngoo yonantu yi ñépp a xem nubbu nubbu doo palante ndax mbir la moo xam ne laajata gis sa ba luy xaañ waaye nag daraja mooy palante yonantu yi xëppante nañ daraja ndax yonantu yëpp ñeneen ni jéem a lim ñu wax ne seen lim yàlla ko xam ñay jéem a seen lim ba wax ne cent vingt quatre mille la waaye xamuñ daraja cent vingt quatre mille yooyu yàlla yëkk trois cent treize yónni leen ñu ëpp daraja ñeneen ña ca des mu ngi mel tey bu leen postu ñaara fa ne ñiy poste leetar yi ak ñi yoon yóbbu courrier yi rusul yi nag ëpp daraja ñoo ñu yóbbu courrier yi di yóbbu ko ci kër yi ñenn nga nag dañuy posté rek toog foofa kooku mooy nubbuwatu am ñooy anbiyaaw yi nga xam ne dañ leen jox nubbuwatu waaye nag ñoom digaluñ leen ñu woote rusulu yi nag mooy ñoo xam ne jox nañ leen ndigal jox leen risaalatu jox leen maanaam courrier yi ñu koy tasaare ci kër yi di ko joxe di woon nit ñi yaa moom leetar bi France la bàyyi ko nangam ak nangam ñooñu tamit li ñuy baax baax yëkkat gën a yëkkati ko daraja ñële am nañu leen gën a yëkkati ko ci seen biir yàlla tànn nga maanaam vingt cinq personnes vingt cinq personnes mooy ñaar fukk ak juróom tudd seen tur ci alquran ñooñu ñoo gën a foor yeneen yonent yi ñu tudd ci alquran ñu tudd ci alquran yonentu yàlla Muhammad ci jiitu ca Haaruna nga ca Yaquba nga ca Ilyaasa nga ca Yasaxu Zul Kifli nga xam ne mooy Isqiil ak Yuusufa Yaquba ak ñu mel ni ñoom ñooñu ña nga ca ak Luut ak Daawuda di dem demeet ba may ñaar fukk ba ma man ñaar fukk ak juróom boo demee ci Xaadimu Rasuul way nañ ci benn téere def tawasul ci ñoom téere bu ñu tuddee Sindiidi yàllaaw bil Moustapha sindiidi yàllaaw ba ba mu jeex léegi tamit ñaar fukk ak juróom ñooñu am na ñu gën a yëkkati waa daraja ci ñoom mooy juróom ñu ñuy jox téere tuddee leen ulul nga xam ne mooy yonentu yàlla Noox Ibrahim Moussa Isa Sayyiduna Muhammad moom bi yàlla waxoon na ko asbir kama sabar ulul azmi mina rusul ulul azmi nag mooy am na ku a yëkkati ku daraja te ko kenn du ko gën a yëkkati ku daraja ba péncam yàlla mooy Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon moom mooy tànneefu tànneefi tànneefi boo ko seetee mooy première yu première yi première yi kooku mooy Seydina Muhammad aaya bii ñi war cee teg nag moom la ñu tuddee aayatul kursi yi moo gën ci aaya alquran yépp alquran nag bu fekkee kenn ko wax di yàlla kenn waxam man ta gënante mënuñoo wax ne maa wax lii ñu ne sa wax jee gën ji waaye xam nga wax ji bu gën a ji ni ñu koy mën a déggee mooy la nga wax fii moo gën a fort la nga wax fële loolu xam nga xam na ci nit sax nga def conférence fii ñu ne ah sëñ bi dee wax dëgg yàlla conférence bi moo gën ba nga def fële te pourtant yow kenn yëpp benn benn salaam yi nga la génne waaye thème yi dañoo bokk ndax wax ak football ñoo yem football bi wala sax bu la neex nga ne ak bëri comme léegi moo xew ndax ndawi Sénégal yëpp seen yaakaar tas na ba mooy ñaar ndaw liy musique ak ndaw liy bëri ñoom visa yomb na leen bu te ku ci am ñaari combat rek télé bi génne la boo ñaanee misa ñu may ku fi nekk tamit doo dara dem fexe ba way fi ñaari clip rek tëgg ak fecc rek boo ñaanee visa ñi may la loolu tamit ñu sàggan ñi comme ñoo gën a bëri mën nañ la caa jox dara su ko defee kon léegi-léegi nit ki nekk boroom xam-xam waaye ni mu gisee tey ci waxtaanam dafay wuteeg na mu gisee ëllëg nit ki tamit dana nekk bër mbër waaye ni mu gisee ci combat bi bokkut ak na mu bi tamit noona kon tamit waaye waxam yi dana am foo xam ne nam fa waxee mu dajale ay turam bàkk ci boppam maanaam yëkkati fa ay darajaam dàq fa lu bokkul ci moom saxal fa lu bokkul ci moom waxeewul ko feneen moo tax ñuy wax ne ay sàngam a gën ay sàngam wala ñu ne saar sàngam a gën saar sàngam te fekk loolu lépp ki ko wax kenn la aayatul kursi li mu dajale dafa niwut ci beneen aaya moo tax ñëpp dëppoo nañ ne moo gën ci aaya yi alquran yi mu nekk aaya boo xam ne tabaarakallaahu li mu làmboo dafa bëri làmboo na ndeyi masala yi yuy tegtale sax ak maanaam mat yàlla ga ak dàq ak wàññeeku ci yàlla moom saar wi nag li ci moom aaya bi kon lim rot li ci nekk ci ay ngëneel bëri na kenn mënu koo takk waaye rek pour mos mos mos ci ak mosal leen ci wax nañ ne képp ku génn sa kër jàng ayatul kursi yaa ngi ci garanti ak yàlla fekk ba ngay ñëwee assi maanaam yaa ngi am am nga daal am nga assurance tout risque koo xam ne jamono ji ngay génn ci nga jàng ayatul kursi yàlla dana la wattu ba nga ñëw doo am benn problème oto nga dugg avion la da ngaa dox da nga da nga dugg saxaar yaa xam kon léemu la bi ci ëpp doole nag ca léemu nga mooy booy dugg sa kër booy génn sa kër nga téye sa bopp sa loxob càmmooy nga teg ci sa bopp jàng ayatul kursi boobu moom garante la boo xam ne yàlla rek moo xam nam doon ba tey tamit wax nañ ne ku jàng ayatul kursi ci gannaaw julli gu nekk fexeel julli goo sëlma rek jàng ayatul kursi wenn yoon dee moo la teree dugg aljana booy dee rek dugg aljana kon lañ koy jàng ayatul kursi tamit kër buñ koy jàng kër gu ne bala ngaa tëdd jàng ayatul kursi fanweeri fan seytaane du fa njabarkat bu góor ak bu jigéen dana fa sori lu man ñeent fukki guddi kon moo taxoon yonent ne woon yow Aliyu na nga ko jàngal sa doom yi jàngal ko sa soxna yi jàngal ko say dëkkandoor yi aaya la boo xam ne li wàcce gum moo ci gën a foor li wàcce gut te ñëwagut tamit moo ci gën a foor li ma jotagum daal moo ci gën a for li ma jotagum tamit ayatul kursi yi ci gën a for kenn du yokk tuuti ba tey ayatul kursi yi ku ko jàng jamono ji ngay tëdd nga léemoo ko waxuma sa bopp da ci am sécurité waaye sa dëkkandoor yi dëkkandoor yi da nga mën a xaaraale daaru salaam xaaraale maanaam dari for xaaraale maanaam euh, li ko li la wër rek maanaam sa quartier beeg li wër sa quartier yi quartier yi ñu taqaloo yëpp benn garanti mën lay kon man ngaa jàpp ne alquran mooy sangi wax yi alquran moomu di sangi wax yi suratul baqara mooy sangi saar yi ayatul kursi yi mooy sangi aay yi dégg nga de ñun jibril wa minha ma warada annahu nazala jibril ala musa wa qaala lahu rabbuka yaqulu laka man kaana aqaba kulli salaatin allahuma mu ne jibril wàcc na ci yonentu yàlla musa xam naa tijaan yu bëri ak ñi may déglu borom xam-xam yu bëri dañ koy def buñ julee ba sëlma rek ñaan gi la ñuy jàng allahuma inni uqdimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lamhatin wa lahatin wa tarfatin yatrafu biha ahlu samawat ahlu samawati wal ardi wa kullu shay'in fi ilmika kaahima boo ko jàngee door a jàng ayatul kursi yu wenn yoon su boobaa dee moo la tere dugg aljana te dañ lay tànnaloo ci boo bëgg nga dugg ci te lii boo ko jàngee danañ la bindal yoola yool boo xam ne nam toll yàlla rek moo boo waxee yool ba sax ñu bari dañ koy jàng far noppi dootu ne ah, def naa lu baax dootuma defati ayatul kursi yu mooy allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum ila axiriha ba ca mujj ga dañ lay bindal boo ko seetee waxtu yi ñeent fukki waxtu la ak ñaar ñaar fukki waxtu ak ñeent 24 heures saa bu nekk nag sa jëf day yéeg dana yéeg di ko yéegal juróom-ñaar fukki junne yi dañ la ko yéegalal par heure ku jàngee ni ma ko waxee nii waxtu wu maanaam waxtu wu ci nekk juróom juróom-ñaar fukki junne yi dana xiim du wàcc donte wenn yoon nga ko ku ko jàng nag gannaaw julli bu ne fukki yoon ak ñeent moo tolloog faslu ya su boobaa maanaam yàlla dana def alam bi yëpp bëgg la lu yàlla bëgg lay bëgg alami suuf luy ak xolu wi lu la gis bëgg la ku ko jàng moom ay ku kursi li mu yonantu ya mooy ñetti téeméer ak fukk ak nga trois cent treize ko lu fi yàgg la mooy li mu yonantu yi mooy li mu badar mooy li maanaam taaluuta ca ca soldaaram ya su boobaa njàqare goo mën a am yàlla dana la ko teqaleeg moom loo jàq ba tax nga jàpp ba sell jàng ayatul kursi trois cent treize njëkkee trois def dix door a def bi maanaa eh, ya ca des ñetti téeméer yi njàqare ga moom jeex la bu ñu la waxee mën a àtt ne bu subaa tëj la tamit dara da danga ca génn dara ku ko jàng tamit li muy xarafam ya ayatul kursi boo li boo calculé xarafam ya téeméer la ak juróom-ñaar fukki xaraf kooku moom dootul dangati maanaam ci teraanga yàlla ak xéewal kon nag ayatul kursi lu ci nekk ci ngëneel kenn mënta nekk di ko wax waaw ku ko bind tamit li mi baatam ya mu nekk juróom fukki baat feebar bu nit feebar bu ñu la ko indilee doo ko ko naan da dana saafara kenn mënu ki dara lu sa lu feebar rëy rëy rëy nga bind ko loola jox ko nit mu naan ko insha allahu rabbi yàlla na ko saafara kon ayatul kursi lu ci nekk ci ay ngëneel buñ doon wax fi la ñuy noor te mu jeex mu bu fort la lu bëri ngëneel la nañ koy xëy di ko léemoo bu ñu tëdd suñ kër yi génn tamit léemoo ko suñ ko mënee jël jël suñu loxo càmmooy teg suñu bopp ba su ko defee tamit lu ñu bëgg a def luñ luñ bëgg rek yàlla mën a ko sotti yàlla yàlla mën a musal ñu bopp moo tax bi ko ubbee ne allahu yàlla laa ilaaha amul benn buur ilaahu ndere moom alxayu mooy aji dund ji nga xam ne dund jiituwut dundam nga te dee tamit du ko mujj alqayum mooy kiy toppatoo mbiri jaamam yi di setantal seen mbir mooy buur bi nga xam ne laa taaxuzuhu du ko roofu sinatun ngëmentu wala nawmun sàkkaa nelaw yàlla du gëmentu sax woo ma la bay nelaw mooy buur boo ne lahu aji nekk la ñeel ko maa fi samaawaat nekk juróom-ñaari asamaan wa maa fil ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf yàllaa ko moom moo koy wattu man sa a ana kan kaaka yasfahu dana rammu indahu fa moom illaa bi is ni ndër ci ndigalam kuy rammu ëllëg ci àllaaxira ab yonantu nga waliyu nga nit ku baax nga ndigalal yàlla rek ngay rammee yàlla mooy buur boo xam ne xam na maa bay na aydihim li nekk ci kanam jaamam yi wa maa xalfuhum ak la nekk seen gannaaw li weesu xam na ko lii ñëw tamit xam na ko walaa na mooy buur bi nga xamee duñu peeg bi shay'in ci lëf min ilmihi ci xam-xamam illaa bi maa shaa la ko soob li ko soob nag du ñu xam lépp lennam rek lañ mën a xam ci moom mooy buur boo xam ne wasi'a hëpp na kursi yoo gàngu naayam nga asamawaat juróom-ñaari asamaan wal ard ak juróom-ñaari suuf boo ko jëloon jël ko ci kur boo jëloon asamaan ak suuf tàqarti leen tàllal leen sànni ko ci kursi yu day mel ni jaaro boo ci àllab kerte nga jël maanaam kursiyu ak asamaan ak suuf sànni ko ci aras aras mel ni mu mel ni jaaro boo sànni tamit ci carte bi kon yàlla ku bëri la la léegi nag bu bëri ne da nga mu bëri la ndax li mu bëri le mën na koo wattu mu ne akay ah wala yow doo tiisut ko xifduhumaa wattu leen ñoom ñaar wattu asamaan ak suuf ak kursi yoo ko aras maanaam wattu maanaam ko de ndax fu ne bëtam ma ngi ca tege wa huwa moom buur bi al aliyu mooy ki nga xam ne moo ci nguuram alxasiimu mooy ko kon gis nga ko ay ko kursi yoo moom lii rek sax sëriñ bi dafa daw yaram lu ñuy soxla lépp làmboo na ko yàlla ku bari le la ku bari njaboot la waaye ku am dépense bu doy la kenn ku a tamit fa ngay jëlee dépense ak fa nga koy dugal yëpp moom xam na ko ni mu bëree njaboot ñi la xam ni njabootam toll moo tax bu nit nekk ci jafe-jafe ba foog ne yàlla fàtte na yàlla fàttewut kenn bis bu dee jotee ngay xam ne yàlla fàttewut la waaye léeg-léeg day nekk ci ay problème mën naa nekk sëyam mën naa nekk ci diggante ma jëkkëram diggante moom njabootam li mu liggéeyu waayam mu nekk fu ne mu dugg bu gëmul yàlla say fan yàlla da ko fàtte waaye yàlla fàttewut kenn lu ne moo koy wattu moo tax yonent yàlla Muusaa mas naa laaj yàlla ne ko waa yow yàlla dooy nelaw yàlla ne ah, man ngay laaj bu may nelaw moom déet kaay Muusaa ñëw mu yëkkati ñaari kaasu weer yu mu def ndox ne ko téyel bi ci ndeyjoor téye bi ci càmmooñ nga téye leen Muusaa téye ko ñetti fan rek daal di nelaw ba muy nelaw rek ñaari kaas ya fàddante mu toj yàlla ne ko man mi taawu asamaan ak suuf su ma nelawaa su ma nelawaa wàcc ñaari dajee alko alko de am ci ñëpp man kon du nelaw yàlla duut kuy nelaw nelaw manqué la koo gis muy nelaw dafa yàlla ko mag la ndax dañoo manqué ngay doon di kër kër yi rek da tawa daw ba sonn rek nga tëdd nelaw moom laay wax doomu aadama jëmul fenn moo tax loo jëm rek fenn mu nekk doomu aadama fenn la jëmut li lay xamal ne jëmoo fenn li nga xëyee li nga jëkk def rek mooy dugg fudd dugg ci wanaw yi génn nga ne yaa ngay xëy léegi-léeg nga dox a dox ba si yàgg nga toog toog ba si kanam nga jugaat taxaw taxaw ba ci kanam nga tëdd ca ngay nekk ba jant bi soo nga nga tëddaat sa lal di jaaxaan bi su ko defee kon nag fenn yooyu fexeel mu jëm ci yàlla rek boo ko defee rek noppi waaye bu jëmul ci yàlla rek nga gën a perte kon yàlla ngoog li muy bëri li ngi la mën a waxtoo am dara lu ko réer kulliyaat yeeg juz'iyaat yi yëpp xam na ko amul benn détail aaya bi nag wàcc aaya la boo xam ne yàlla dafa bëgg a wane ne diine duñ ci forcé kenn ku ñuy tuddee abu xusayni moo amoon ñaari doom benn doom ja dafa nasaraanu gannaaw bi ñu ne yonentu yàlla muhammad ba ñëwee madina di jaay si dégg de léegi seen baay dajeek ñoom pour bëgg leen a woo ci lislaam bëgg leen a forcé nag ci lislaam mu ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee nag aaya ji wàcc nag yàlla wan ko di kon lislaam duñ ci forcé kenn dañ ko bàyyi leen yoon bu leer la kum neex kum neex nga bàyyi kon nag rawatina maanaam tariqa yi jëlul propagande kenn bàyyi nit ko doy rek mu dem ci waaye jéem a propagande dalay sonal rek moo tax alquran ne laa ikraha déet ak forcé fi diine ci diine ji xatta ba leer na arus du njub minal xay ci réer de waaye li wér te wóor daal fa man yakfur képp ku weddi bi taaxooti ci xiram yi muy saytaan rek la ca aju wa yuminu mu dëggal bi laay ci yàlla koo ko defa xadis tamsaka ngëb na bi la orwati ca buum nga alwustaa ngay aji dëgër goo xam ne buum goo xam ne du tànk mukk lan fi saama deta fereñtiku lan fi saama deta ak laha di ñeel buum nga wallaahu yàlla samiyoon aji dégg la wax yi alimun aji xam la jëf yi allaahu yàlla waliyu lasi na mooy aji méngoo ña nga xam ne amonoo gëm nañ yuxurujoo mu leen ni génnee mi ne xulumaati ci lëndëm yi muy lëndëm ak xéeféer lëndëm ak réer lëndëm ak bokkaale ila nooru jëmee leen ci leer ak gëm yàlla waaye wala si na ña nga xam ne kafaroo weddi nañ awliyaahum ñi leen méngoo taaxootu mooy xërëm yi ak saytaane yuxurujoo noonu dañ leen génnee mi ne nooru jëlee kon yàlla contraire ba lay def dalay fekk nga bon mu baaxal la keneen ku dul yàlla nag boo jaxasoog moom dalay génnee ci mbaax yóbbu la ci bon kooku nag perte la moo tax bul sonn booy topp toppal ku lay baaxal waaye koo topp mu nar laa bonal rek ban ko gannaaw li ko may boo liggéey ak moom it ngeen bokk dem safar te ji jamono sëriñ bonal nit ñi ñoo baaxal nit ñi parce que bala ngaa mën a baaxal nit day fekk nga baax bala ngaa mën a defar nit waaye li ëpp ci jamono defaroo moo gën a bëri defaroo ku defarut mënoo defar kenn maamala jàpp laa gis ne bala ngaa mën a defaree day fekk nit ki bu sukkee ci sa kanam nga xam fi mbaaxam gi toll ak mbonam ci foofa ngay door a mën a defar bi foofa tamit ngay door a maanaam xeeyoo a fekk sa maqaama xeggagut foofa war koo lekk addiya bu sa foofa tamit mën a koo defar kenn kon nag tabaarakallaahu defar moo gën a bari kon nag aaya yaa ngoog aaya tegu ci yàlla ngi ciy jàngale xisa bu yéeme bu daw yaram boo xamee dafa doxoon ci diggante Ibrahima ak buur bu kàccoor bu ñu tuddee Namruus Namruus kàccoor la woon moo doon Namruus ibnu Kanaan yaayam da koo ëmboon doomi njaalo la ngir ragal nguur ak baayam nga sànq ko kanaan mënutoon a sëy waaye buur la woon yaay ji nag yëg ne su fekkee ne sama jëkkër ji génn àdduna te doom am nguur gi day toxal mu jàppandal boppam ci ab sàmm mu juddu ja léegi nag ñu foo ne bàyyi ma ko moom na mu mooy ki njëkk a sol mbaxanaay buur yu guddi yi nga leen gis ñuy sol dañu génne ci télé yi muy mbaxana mu bëgg a asamaan mooy ki ko njëkk sol ngir bew Namruud mooy ki sànni woon yonent yàlla Ibrahima ca safara wa Namruud mooy ki nga xam ne bokk na ci ñeenti ñi mos moom àdduna bi yëpp àdduna bi bi mu sosoo ba léegi ñeenti buur ko mos a kilif penku ba sow ñaar nga jullit mooy Namruud ñaareel ba mooy Buxtu Nasar jullit ña mooy maanaam Suleymaan ibnu Daawuda jullit la moom àdduna bi ak maanaam ñu tuddee Zul Xarnayni moom nga jàng ci suratul Kahfi mos naa moom àdduna bi yëpp. ñeent ñii rek bu ko moyee nag koo waxati buuram de benn gox la ñen la ci aw nit léegi de ñeenteel bi xanaa mooy américain yi ñoom de yilif nañ àdduna bi ci système ba tax na tey ñi fi nekk tamit ay buur yi xusmaa ñàpp rek lañ américain yi ñoo leen yilif lañ bëgg def nit lañ ko ba fexe ba def ko benn ki suñu réew mi tey boo demee tey seen ambassade ba tali bi nga xam ne ñoo ko moom sax baare nañ fexe ba jënd ko ñun tekkee duñ ci dara Namrus mii nag dafa notoon nitam ñu wane ne mooy moom moom àdduna bi mooy seen buur mooy seen yàlla Ibrahima juddu nekk xale bu ndaw teel a ñor wax yaayam ne ko yow yaay man mii kuy sama borom mu ne ko yow man maay sa borom mu ne ko yow nag kan mooy sa borom mu ne ko sa baay mooy sama borom mu ne ko sama baay mooy boromam mu ne ko Namruus mooy boromam mu ne ko Namruus kuy boromam yaay ja pes ko ne ko laaj nga lu rëy kenn loolu kenn wul ko laaj Ibrahima ku rëy la léegi nag loolu xëy nag tabaarakàlla revue de presse yëkkati ko li xale bi laaj jar naa laaj kenn ku nekk def ko premier titre li xale bi laaj robinet ba di ko rootee teen ya mbedd ma li xale bi laaj ah kay mën naa laaj dañuy ne jarta laaj coow la bëri. léegi nag ban menee ba nga xam ne léegi ñu ne kon nag kon coow li bëri na ki moom coow li na leeral na mbuus taxaw war a woo nag war a woo Ibrahima war a jaamaar loolu moom ci wax naka jekk wax ju nit wax ju ñor yàgg naa mu ne ko waaw yow da nga wax ne yaay xilif nit ñi yaay sa borom yaay boromi nit ñi mu ne ko waaw mu ne ko waaw kon léegi ndax man ngaa rey mën a dekki man de borom bi may jaamu yaakaar ne moom lañu war a jaamu mooy koo xam ne moo mën a fekk kuy dund mu rey ko moo mën a fekk lu loolu yomb na nga ñaar ñii gi lañ nekk maa leen tëjoon peine de mort laa atte woon ci ñoom kenn kaa ngi nii kon rey naa ko rendi ko keneen kaa ngi nii jéggal naa ko parce que ñoom ñaar ñi dañoo waroon a dee ko de dundal naa kenn ki rey naa kenn ki mu ne ko noonu li may wax nii du yàlla waaye nag nekkuma fa di discuter sama borom bi ma lay woo mooy ki jëlee jant bi ci penku bi moo ko indi nii ba ci digg wala ci xarfu bi maa bëgg yow nag nga jëlee jant bi indi ko fii fa bu hitale fii kafar ba nga ko waxee rek waajee tëj ci xamatu lu mu cay tegati parce que jeex na loolu moom coow mënutu caa nekk loolu la yàlla wax si moo tax mu ne ko alam tara xanaa xéegul sax xam ilalla fii dem ci gaaj nga xam ne xaaja dafa dàggante ibrahima ibrahima fii rabbi ci mbiri boromam an ataahu ngir lim ko jox laahu yàlla al mulka nguur li ko yàlla jox nguur a tax muy toog di bàkku bokk ci ñu mosamoon adduna bi is xaala ba waxee ibrahima ibrahima ne rabbi sama borom la si mooy ki ne yux yi mooy dundal wa yumiitu mooy rey mooy fekk ku dee mu dundal ko mën a dekkil tamit tabaarkàlla xaala wax nag moom na mu rus a ko anaa man wax yi dundal wa umiitu maay rey mu oo ñaari nit ñu ci kaso atte woon ci ñoom pende meer pan maanaam pan pen pende moo rey kenn ka de maanaam bàyyi kenn ka xaala ibrahima ne xaala wax ibrahima ibrahima ne ko nañ baxi loola léegi nag ina laa naka yàlla yaati mooy moo andi bi sam si jant bi minal mashriqi jëlee ko ci fenkuwaay bi kon nag yow fàtti na nga andi bi haa ci jant bi minal maghribi jëlee ko ci soxowaay ba buy bii baax na bu beneen jant baax na waaye ba ko waxee lii fa buxita ne tocc la si xam ne kafara weddi na fa buxita gëlëm na la si nga xam ne kafara weddi na léegi nag mu ne tocc xamatul lu mu cay tegati yàlla dafa ajana walaawu yàlla laa yahdi du gindi alqawma nit ña zaalimi na ña day way ku gindi koo xam ne da ngay tooñ am lay wujjut doo xamati foo jëmati dañoo jegee nag moo xisa bii ndax ci dekkil bi nag dafa am kenn nitu yàlla ku yàlla mayoon koo xam ne tabaarakallaahu ñu ngi koy tuddee xursa yu yowóor yi sax dañ ko gëm a gëm a gëm ba di ko jaamu yàlla la comme ni nasaraan yi jàppee ne Isaa yàlla la ñenn ñi ne Useyru doomi yàlla la ñenn ñi jàpp ne Iisaa doomi yàlla la ay kuréel la ci ñoom moom dafa mës tukki moom moom Useyru ibnu Sharqiya bokk ci banu Israil am na ñu ne yonantu la ñenn ñu ne waliyu la waliyu nag moo gën a siiw moo xati dañ ne waliyu lañ am na sax ñu wax ne góor la koo xam ne gëmut ba yàlla rek a xam dafay dafa doon dafa weddi woon yàlla di weddi tekki ba yàlla na mee nag pour jubal ko la ko wan nañuy dekkile mu tukki rek ñëw baytul muqaddas fekk buxtu nasar raaf na ko mooy ki ma la wax ne mooy ñeent ñi mosul àdduna bi bombar daña fa nekk yépp ba tas maanaam jàkka ja tasaare ko tas booga sax la nekk ba Omar ibn Khattab moo nag jël taw taw ko nit ñi di ci saw bu bon na moom moom nag léegi bi mu ñëwee fekk dëkk bi ràpp mu ne waaw yàlla ndax mën naa dekkilaat dëkk bi dëkk bi ni mu rafetee woon mbedd yi tali yi tabarkaal point ak dëkk bi def nañ ko canalisation ndax dëkk bi mën naa mel na melaatoon ba mu waxee loolu yàlla rey ko ba ko yàlla reyee nag dekkil ko fekk am na fa téeméeri at mu dekki nag yàlla laaj ko ñaata at nga am fan wala maanaam genn wàllu fan ndax biñ koy dekki biñ koy rayal heure bi suba gi biñ koy dekkil ngoon la mu fane fan boobu jant baay dox di sox léegi nag léegi moom moo mën a lay wax si nii moom lay wax si nii moo tax mu ne aw kalasi wala ni ki waaja nga ne mara dafa romb ala xaratin ci dëkk muy baytul muqaddas fekk ma nga war mbaamam ma waxiya fekk moom dëkk ba xaawiyatun aji la ala ay kanam ya xaala muy wax di mu ne ana yox yi naka lay dekkilee haadihi dëkk bi allahu yàlla baax da mawtihaa gannaaw dee xam fa amaatahu ray na ko laahu yàlla mi ata amin téeméeri at su ma baax soo gannaaw si ko yàlla dekkil ko xaala sama borom laaj ko ko kam labis sa ñaata nga sax fii xaala mu ne labistu sax naa fi yow man bis aw baax da yow min wala genn wàllu bis xaala sama borom ne ko balli fi nekk labista sax nga mi ata amin téeméeri at fansur na nga xool ilaa taamika jëm ci sa ñam wi te mooy figg gi wa saraabika sa naan wi muy resin bi lam sax mooy soppeekuwul wansur na nga xool maanaam ilaa ximaarika jëm ci sa mbaam mi nga xam ne dafa dee moom tamit ba yax ya fana léegi na yàlla di ko dekkil muy xool na mu dekkee wala nañ xalika ngir ñu def la ay tan ngay kaawteef ci dekki wansur xoolal ilal isaam yi jëm ci yaxi mbaam mi kay fa nun siroha naka lañ koy dajalee am ñu jàng nun siroha waaye su ma nako suwaa topp ñu ñu xoddee yax yooyu ya dajee ñu ñu xoddee ko laxman yàpp léegi nag bañ ko xoddee yàpp nag mu suux mu taxaw fala maa tabayana nga xam ne biir na la hoo ñeel ko xaaral la wax ne ax la mu xam naa ne ana laa naka yàlla xaadirul aji xattan la alaa ko seen ci lépp lëf yàlla ray ko ray mbaamam ma ñamam ba sax foroxu téeméeri at ñam boo xam ne ni mu doon bu doon boisson yi soppeekuut tabaarakallaahu mu jub xool ko foroxut mu foog ne genn wàll la fi am wala fan bay doon benn fan la fi am mu xool na ba yàlla jël yaxya dajale ko nam war a mel door a jël yàpp wa teg ko ca muy garba door a jël maanaam kawar ga teg ko ca mbaam ma jub mu yéemu na yàlla na ko dama laa bëgg a def kawtim nga xam ne dee dekki mën naa